Uh-huh. dama benn uh, uh, kii comme ni ma soloo nii uh-huh. oto uh-huh. gis benn taalibe buy tari benn saar dama raf yëpp ma ko mais yow lii lañ la jàngal benn benn borom écouteur naan kii moo ngi corriger xale bi mais xam nga l'apparence est souvent trompeuse dëgg la léegi tey ñoom du ñu jël seen temps sax jàngal xale bi ni ñu ko war a jàngale mais ñu si bëri am na nag sëriñ daara yu baax mais am na si ñoo xamante ne tamit dañoo jàppee xale yi comme ay objet di leen yalwaan loo parfois moo leen di pousser à que ñuy sàcc ñuy def leneen leneen man loolu moo tax may loolu lay dénoncer mais pas que xale bi da parce que man alxuraan laa njëkk a jàng balaa may jàng école. dégg nga lii ci waykat dégg ngeen dégg ngeen xam nga ñoom dañuy naxee